Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni euh, ku ne xam na ni cent 1981 euh, ci la toog xilaaf ak Seydina Ousmane Mbacké Noreyni bi nga xam ne mooy way juróom mm-hmm. booba ku ne xam na ni doonu doon jamono bu yomb ndax ku ne xam na Seydina Ousmane borom cër la woon te lu ne feeñal na ko ci jamono ci ñi xamutoon mbir mi diisoon na ci ñoom ndax jàppoon nañ ni ndem Sëriñ Seydina Ousmane dem na rek nit mënatu koo wutu ci kaw suuf ndax Seydina Ousmane daa wax naan ku dul yàlla doo yonent doo Sëriñ Tuubaa mm-hmm. doo ma wutu kon bu nit ñëwee ni mooy taawam ñëpp ni mooy taawam ba noppi mu am 27 ans. Mm-hmm. doon tout tànk ci saa yëpp dana yéem ñu bëri. waaw waaye nag euh, bu ñu delloo ca wax jam waxoon ndax njëkk muy dem ñëpp di yéemu ci moom moom Seydina Ousmane dañuy ah li may wane lépp de mm-hmm. ku ne xam ne na ngeen xam ni euh, pënd bi la rek waaye naar góor waa ngi dikk. Mm-hmm. looloo xam li pënd bi la waaye naar góor waa ngi dikk Cheikh Ahmadou Kara toogee xalifa coow li bari lool xeex bi bari sëñ Moraw Balla Ndaayam mi nga xam ne mooy doonoon xalifa Maam Cerno Birahim te toog ci jal bi 40 ans moom moo moo àdduna bépp ba ñëpp teew mu ni dama bëgg ngeen ànd ak Moodu mu jug-jugaale leen te boobu kenn xamagul bu baaxee baaxal leen bu banee baaxal leen te ngeen def ko muy seenum Sëriñ Tuubaa loolu la wax géwél bi ñu naan Amadou Samb moo ko doon jottali mm-hmm. bi mu agsee ci te ngeen def ko muy seenum Sëriñ Tuubaa Amadou Sam mu nangu ko wax ndax dafa yaakaaroon sëñ bi daa jëm ma xëy na wala naax ci maa ngi jégul ci wàññi. Hmm. waaw sëñ bi kon ko jaaro bi ni ko waxal li ma wax loolu mu ni nee na te ngeen def ko muy seen sëriñ Tuubaa waaw mu daal ni ko Modou kilifa gu mag nga nar a doon waaye booba na laa taalib rek ñor waaw na laa rek ñor yaakaar naa ba fii nii tey. Hmm. ko xam Cheikh Modou Kara gis aw doxinam bu la fàttalee wax yi wax jooju nga xam ni kon fàttewul démb. Hmm.